le format, et puis ce sera partagé pour les informations, justement. Je vais après laisser à mes collègues le soin de euh, revenir, mais bon, certainement, je ne vais pas manquer de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place euh, les, les, premières démarches et les premières étapes euh, où on était à fin prêt pour la première édition qu'on avait retenue le mars passé. Concernant la nouvelle date retenue, vous nous le notez tous, Ce sera, Inch'Allah, le 28 avril, après, euh, après de Corité, Inch'Allah. Donc le avril, ce sera un vendredi. On va tenir le grand panel citoyen, Inch'Allah, ici même au Kilfat Vous allez recevoir, juste après cette conférence de presse, vous verrez que la communication, elle sera encore offensive, beaucoup plus même que la première phase. Donc je remercie toute l'équipe du Grand Panel, toute l'équipe toutes les commissions, je ne vais Je remercie toute la presse ici présente, je remercie les partenaires. Euh, aussi marquer notre considération. J'ai aussi des propositions. Je pense que la cellule de communication, une communication et un contact beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct avec les invités qui ont marqué vraiment leur importance. Et je pense que je vais leur suggérer de créer des cadres à travers Telegram ou WhatsApp pour que la communication soit avec les invités surtout. Parce que par rapport à la presse, le contact est fluide, la communication est facile. Mais certainement avec les invités, surtout par rapport à ceux qui avaient reçu des bracelets et des tickets pour la première édition. Tout cela doit euh, justement être organisé pour que ces mêmes personnes parce que le jour de l'événement, Badara peut me témoigner, nous avons vu toute la presse qui n'avait pas reçu le communiqué se présenter au qui ont quitté Tamba pour venir, pour venir assister au Grand Panel. Donc nous avons fait le déplacement sur place les expliquer, parce qu'ils n'avaient pas l'information du report. Et donc euh, je pense qu'il faut justement que toute l'équipe, le comité d'organisation, prenne ces personnes en priorité pour vraiment être présente le jour comme je l'ai annoncé le 28 avril prochain, avec ces trois panélistes, à savoir le ministre Cheikh Omar Anne qui sur le secteur de l'éducation nationale, le ministre Moussa Balde qui fera le deuxième panel sur le secteur de l'enseignement supérieur et le ministre Ablassé de Sow qui va terminer avec le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Donc ce sera ces trois panels qui seront au rendez-vous. Mais je vais vous rappeler que l'objectif du grand panel, c'est de faire l'ensemble des secteurs du pays durant l'année Donc on va enchaîner avec la première édition dans la communication va commencer aussitôt juste après cette conférence de presse et puis enchaîner avec les autres secteurs avant le, décembre, qu'on puisse faire le maximum des secteurs. Parce qu'il y a d'autres secteurs aussi du moment, d'autres secteurs qui intéressent les Sénégalais. Je vais par exemple, le, le secteur des transports terrestres, le secteur du commerce, qui sont des secteurs du moment, des secteurs vraiment très essentiels pour les Sénégalais. Mais bon, en résumé, c'est mois pour la communication

da ngay da da ngay càmbar euh, wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo la dénkoon li ngeen ma dénkoon ci xayma lii laa ci def bu ko defee nag ki nga xamante ni moom moo la dénkoon moom mooy xool est-ce que lim la dénkoon ak la mu doon xaar ci yow mate nga ko waaw wala déet naka noonu ñi nga xamante ni tey jii nii ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi di di di ñu dénk leen sunu lépp muy wàllum njàng mi muy wàllum. Euh, paj mi muy wàllum cet mi muy wàllum dëkkuwaay euh, dañoo yaakaar ne fi ñu toll fii nga xamante ni daanaka fukki weer ak benn moom moo ñu taqale ak li nga xam ne moo di présidentiel war ñoo mën a toog jàkkaarlook sénégalais yi su may wax sénégalais yi du ma wax rek ñi nga xamante ni ñoo yore seen oto di taal seen climatiseur seen lépp ñoom euh, ñuy waxtaan ak ñoom. jaaykatu gerte caaf bi kiy jaay banaan mécanicien bi ki nga xamante ni moom mooy euh, ouvrier bi nga xamante ni moom moo nekk ci chantier bi. amoon na yaakaar ba muy jël carte électorale am di dem ci mbañ gàcce gi naan kii laa tànn parce que dama am yaakaar ci moom kon ñun ñu amoon yaakaar ci ñoom tey jii dañoo war a toog jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen faloon ne ah ay la yéwén fukki at yeeg ñaar gannaaw ba ngeen ñu falee ñun lii lañ def ci wàllu wi lii lañ def ci wàllu wee lee lañ def wàllu wee ñun xamante ni nag ñu ñoo leen yaakaaroon ba denk leen ñu ñooy xool est-ce que ñi la taxoon ñu fal leen la taxoon tax leen ci bopp réew mi matee nañ ko waaw wala déet boobaa ñu ñooy jugé jugement bi xam nga fan lay doon bésu élection yi bu ñu demee ci biir gaaj ngàcce bi ku nekk sa digganteeg yàlla yaay xam ndax kii nii lañ ko dénkoon matee na ko waaw wala mateewu ko bu fekkee matee na ko ay bu fekkee mën nañ leen dénkaat ñu dénk leen bu fekkee ne gis nañ ne ñi nga xamante ni ñoom lañ dénkoon mateewuñ lañ doon xaar ci ñoom ñu jël ñeneen ñoo xamante ni am nañ yaakaar ci ñoom daal di leen teg ci réew mi loolu la maanaam dañoo bëgg a changer paradigme soppi doxalin maanaam balaa ñuy dënkati kenn réew mi wala balaa ñu koy dénk lenn loo xamante ni dañoo am yaakaar ci moom la ko dénk na ñëw jàkkaarlook askan bi ba pare daldi rendre compte wax ne lii ngeen ma dénkoon ci wàllu wii ak wàllu wee lii laa ci def léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu xool est-ce que lañ ko dénkoon matee na ko waaw wala déet. mu ñëw ci treize ci laaj bi nga li laaj bi nga laaj. je pense que moom mooy loolu léegi report bi effectivement Aziz report bi li ko waral mooy maa ngi koy wax ndaxte le 18 bi passé lañ jàppoon pour def grand panel bi fàtte naa ko wax sax ci tubaab parce que vendredi bi ba je pense que 15 ñu ngi ci siège bi di def réunion di xool nécessité dañuy tenir rendez-vous waaw wala déet. Euh, je pense que am na benn journaliste Walfadjri bu ñu posé woon keroog question ba ñëwee fii King Fat Palace parce que euh, loolu tamit dañ ko fàtte souligner King Fat Palace keroog ñëw nañ fi. parce que ay journaliste ak ay invité dañ woon ne ñoom ñi ngi King Fahd Palace te xamuñu woon ne mbir mi dañ ko reporté man mii ci autoroute bi la ñu woon maa ngi woon ci yoonu Kaolack bi di dem weekend kii moo ma woon ne ma naa bàyyi sama lépp maa ngi woon presque booru tëglu ma rebroussé chemin parce que je pense que ne respect la pour ñi nga xamante ni da leen a invité woon ñu ñëw fekkuñu fa kenn ak loo jàpp nga bàyyi ko ñëw expliquer leen je pense que y avait des confrères qui étaient ici ñu expliquer leen lan moom moo tax. parce que tension bi dafa vivoon fii ci Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay agence de location de voiture pour des raisons de publicité duma ko wax fii nii ñoom dañu woo ajjuma ci guddi xamal nañu ñoom du ñu jël risque génne seen ay bus yëpp si ay nit naan ñu ngi koy yëg King Fahd Palace parce que bu ñu ko yàqee du ñun ñoo leen di fay bu weesoo loolu nag leneen li wax mooy élèves yi ak étudiants yi nga xamante ni yu bëri dañoo waroon a participer ci panel bi seen ay établissement seen école lañ waroon a jóge ñëw fii bis yooyu ñoom ñoo waroon waroon a jël convoyé leen égg leen indi leen fii nii il s'est trouvé que bus bus yooyu noonu mënul woon a dem foofu noonu te King Fahd Palace ku xam King Fahd Palace xam ne zone bu enclavé du ku nekk moom moo fi war a mën a ñëw am ay délégation yoo xam ne dañu waroon a jóge ay invité waroon a jóge Tamba ñi waroon a jóge Kaolack ay Kédougou Matam ñooñu amuñu woon ay moyens de transport yoo xam ne ñoom ñoo leen waroon a indi fii ba Dakar pour ñu daal di participer ci panel bi je pense que condition yooyu noonu rek doy na motif pour ñu daal di reporter te ci report boobu noonu je pense que guddi gi Pape Alioune ak Aziz ba ñu wooyee les trois ministères euh, bon on était même étonné que ñuy wax ñu yéen mënu leen ñoo wax ba ñu ñu engagé wu jël suñu ay équipe technique boo leen ak yéen ngeen liggéey ci li nga xamante ni moo di présentation yu war a def parce que secteur yi njël yëpp du délégué du kenn ministre seen bopp ñoom ñoo waroon a jëf ñëw toog def présentation yi muy Cheikh Omar Anne muy Moussa Baldé muy ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Seydou Sow te je pense que ni loolu lañ doon xaar ci ñoom ñoom ils étaient étonnés mais bañ leen waxee raison yi aussi ñoom tamit d'accord nañ ne lii nii euh, parce que intéret supérieur de la nation la duñ jël euh, li nga xam ne moo di risque di indi ay nit ci tension boo xamante ni dafa woon ci biir réew décisé woon ne sax ne dañ koy def premier semaine ci koor gi mais boobu ba léegi boo leen seetloo réew mi am na dal mais les gens sont sur le qui-vive pas plus tard que avant dégg nañu mort d'homme am na fële fi nga xamante ni moom moo di Bignona barki démb ci guddi dégg nañ yenn ay tension ñu ngi am pour ñu daal di éviter loolu yépp ñu bàyyi fii ak un mois weer yàlla bu defee jàmm fekk lépp daal dinay sedd ñu def grand panel bi woo ñi nga xamante ni ñoo di kilifa bi ñu jàkkaarloog askan bi ñu laaj leen lan ngeen fi def ñu wax ñu bu boobaa ñun dinañ xam décision bi nga xamante ni moom la jël ëllëg vraiment loolu moom moo doon li nga xamante ni moom moo waral lii di rapport bi. Merci. Oui, je pense que nous arrivons au terme de euh, la santé, des autres secteurs du gouvernement. Il y aura même les collectivités locales pour faire un clin d'œil à ma sœur, l'élu local de Grand Yoff. Nous remercions également le secteur privé qui est présent. Si vous avez vu, on a eu droit à l'intervention d'un représentant du secteur privé, d'un représentant euh, des élus locaux, d'un représentant ou de plusieurs représentants de l'enseignement supérieur, je parlais des étudiants. Nous avons enregistré plusieurs questions et nous n'avons pas l'ambition de donner ces réponses-là. On va mettre toutes ces questions sur euh, le, le, le, grand panel et ce sera au ministre de à ces questions la Donc je voudrais juste revenir un peu en wolof si gërëm ak cant beral ko ñi nga xamante ni ñoo def déplacement bi tey et lii wan na nit ñi ni ñi ngi xaar grand panel bi parce que boo gisee élu local ñëw gis secteur privé ñëw jël parole gis étudiant ñëw jël parole gis chroniqueur de la presse ñëw jël parole ça veut dire que ça les intéresse dis juste que du ñu yem ci éducation ak enseignement supérieur on va au-delà yeneen ministres yëpp dinañ leen woo ñu ñëw fii def ak ñun grand panel parce que espace la boo xamante ni on offre ça aux Sénégalais maintenant le dernier mot c'est de lancer un appel par rapport aux autres ministres leur dire que lii occasion la opportunité la pour ce gouvernement la nga xamante dañu am problème bu xaw a yéeme un ci communication seen communication ñu bëri dañ leen ci sikki ni des na desul mais lii occasion la pour ñu mottali ko en tout cas donc ñi ngi lancé appel yeneen ministre yëpp wax leen que ni grand panel ñëpp lañ ko ubbil et que beneen côté bi tamit population yi syndicats yi société civile part politique yi ñëpp tamit ubbil nañ leen grand panel li ci des rek mooy ñu téye retenir que ni 28 avril ci la ñuy ubbiwaat grand panel bi première édition lii lancement bi nag la d'ici booba nag dinañ communiquer lu bëri pour que ñëpp xam naka la grand panel bi tëddee naka lañ ci inscrire naka lañ ciy bokkee report yi duñ ci ñëwaat wax nañ leen di tax ñu reporté ko li am solo rek moom mooy amaat nañ beneen date donc ñun ñëpp dañ concentré ci beneen date bi ensuite ñu travaillé ci ensuite ñu réussir ko pour permettre aux autres ministres tamit ñu ñëw waxtaan ak ñun ci yeneen secteurs yi ñu leen dégg ñu leen gërëm di leen sant.